asalaamaaleykum monsieur Mboup da Mboup maa ngi lay nuyu di la jaajëfal am mbégte en tout cas fas yéene waxtaan ak yow ci li nga xam ne dafay dem ci wàllum élection législative yi nga am mouvement de soutien au au parti présidentiel à la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar euh, ma yëg ne déjà yéen dafa am une sorte de frustration bi nga xam ne. am ngeen ko ci coalition woowu rawatina coalition bi nga xam ne moom la président mak Sall di jiite euh, nga tënkal ñu rek déjà fàttali ñu tuuru association bi seen seen mouvement nu mu tudd. asalaamaaleykum wa rahmatulah ngi sant suñu borom bu baax di sant waa Sénégal mi ma may pour ma mën a wax ak ñi nga xamee ni ñooy suma association wax ak ñi nga xamee ni ki nga xam ne président de la république. association bi nu mu association bi nga xam ne maa ngi koy jiite mi ngi tudd euh, association askanu rab du Sénégal et de la diaspora. fagaru bokk bëgg bëgg bëgg. f rab. Mhm. Sénégal et de la diaspora. d'accord. ba bokk bëgg bëgg. F3B. Ah, donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci déglu bi may déglu. Mm-hmm. di wax ni rek comme li nga laaj dafa am solo. lu fas du sax frustration mais cri du cœur la. waaw. waaye nga may ma tuuti euh, euh, euh, mon cher. Mm-hmm. maa am ñu ma nuyu ba pare. waaw dafa am solo. man bu may wax damay wax pour. njaboot yëpp dafa wax pour askan bi mm-hmm. donc bala may commencé ni maa ngi sant suñu borom bu baax di jul Seydina Muhammad di sant Serigne Touba Khadim Rasoul mm-hmm. ñun ñi nga xam ne askan bi lañ ñun Serigne Touba mm-hmm. donc maa ngi yëkkati sama kàddu di nuyu ñi nga xam ñooy responsable mouvement bi te jëkkee ci vice président bi dañuy wax Fatou Mbaye boo di ci boole secrétaire général bi Amadou Samb fële ci Njaañ la dëkk. Hmm. am nañu nag mu ngi dëkk Thiès ak président des jeunes Cheikh Gueye Niang ak président des femmes mu dëkk Kaolack ñu wax Adja Mbarem Gueye ci loolu nag aussi la ñuy nuyoo ñëpp ñi nga xamee ni ñooy suñu responsabilité à travers le Sénégal ndax kan ñun mouvement national lañ ñun nous revendiquons au moins cinq mille adhérents loo xamee ni ñu bari amuñ ko fii ci réew mi ñuy dégg. te suñu sympathisant ëpp na cinquante mille ndax communauté la am donc maa ngi sant di gërëm di ñaanal di sargal bépp koo xamee ni ci communauté arabe nga bokk rek ci askan wi nga mënu ma ni maa jiite ñëpp waaye ñëpp ak fekk fu ñu mën a bokk ak fu ñu mën ne maa ngi di sargal di leen nuyu hmm. jox ko wàccuwaay ndax ñun euh, associa association bi askan bépp hmm. la représenté naka dañuy nuyoo ki nga xam ne mooy suñu doyen fële ca Kaolack yàlla mm-hmm. taal ca mu jiital Allé Samba Gueye Mariam Gueye dak suñu présidente mm-hmm. ñuy waa Thiès di ko jiital ci présidente ba pare di naar ñang di ci boole ki nga xam mooy Fallou Diaga ñang vice président moom Thiès la dëkk ak Adja Ndeye Thioune ak président des jeunes ñoom ñëpp Thiès lañ dëkk ah di ñuy waa Dakar aji Fati Ñang ak aji Maguette Diop di ñuy waa Diourbel Serigne Modou Dieng Serigne Modou Dieng suñu mag Baye Thioune ak El Hadj Makhtar Gueye suñu suñ suñu suñu suñu suñu suñu suñu responsable moral di dem ba Touba di nuyu ki nga xam ne mooy Xaadim Mbeng euh, euh, Sëriñ Bàcc Mbeng ak Xaadim Buub di dem ba Mbàkke di nuyu seene bu Ñang ak Sëriñ Cheikh Diop di dem ba Njaañ di nuyu coordonnateur bi nga xamee ne mooy coordonnateur association bi ñu ma nga ca Italie di ko di nuyu aussi waa ba Adja Mani Roub ak Mor Beng ñooy suñu responsable foofu ma dem ba Louga nuyu Adja Penda Naar Guèye ak El Hadj Madiaye Guèye suñu responsable foofu ma dem ba Mbour nuyu Aji Faam Mbuub ak suñu mag di wax Serigne Touba Ndiaye dem ba Kaffrine di nuyu Modou Mbuub ak euh, Thialla Mbaye di dem ba Ndar di nuyu Mamar Beng ak ak waa këram di nuyu Aji Maguette Ndeye Maguette Diop ak Mousse Beng ak di nuyu waa diaspora président bi Amsatou Mboup vice président di Matar Fall kii nekk Espagne kii nekk Italie donc dama ko tënk noonu pour wan la ni la. Euh, euh, vous euh, da ngay da wan da ngay wan xam naa ne. ne seen association bi vous avez une dimension nationale. ama loolu mënu ñàkk pour ñu xam ni mouvement bu fi nekk xëy na mouvement régional nga département la ni mouvement national lañ mais dox cri du cœur bi moom ñun président Macky bu ñu duggee ci politique moo ñu ci dugal. Hmm. ndax ñun dañu situation boo xamee ni on s'occupait que du social et de la solidarité. Hmm. loolu la ñu raab mooy liggéey la xam wut ak ñooy joxe sëriñ bi. Hmm. li tax li tey ma ma incité pour mën a jàll tey. législative 2017 dafa am sama benn xarit bu ñuy wax Omar Sarr. au passage moo wax président de la république ni ko Thiès day métti waaye am naa fi suma xarit boo xamee ni am na communauté bu mu bokk bu leen jàppale foofu dina baax ci yéen ci la ma président jëkk a woo Omar Sarr ancien député wala Omar Sarr l'ancien député bi nekkoon hmm. réew mi président hmm. léegi bu mu waxee loolu président wooma fekk na président xamante nañ bu yàgg ndax doyen bi ma naan daal di Alioune Badara Niang di magu Idriss Seck moo ma lek waa képp ku nekkoon PDS bi ma ko gisee moom mu gisee ñu te mu wax ma li mu bëgg ma ne ko ci jàppale waaye tax mu insister pour ñëw tey dama koy yëgal président ni ko tey ñu ngi def législative yi sur le plan national kenn kenn kenn wowu rab yi ci lenn boolewuñu ci dara. woowuñu leen sax consulter leen. ne la bokkuñu benn rajo woowuñu ci dara. loolu nag il faut ki nga xam ne moo jiite moo jiite moo jiite coalition mu xam ko tey jii Thiès ña nga def seen seen comité électoral démb rab yi boolewuñ leen ci. te pourtant de waaye est-ce que parce que kenn déggu ci dara parce que yéen tamit xam nga politique yëngal da cee bokk. waaw mais xam nga ñun euh, xam nga yëngal mooy ñiy wut massification ñun dañ ñun ñun dañu rek xam nga ku kuy def du mooy koo xam ne da ngay jéem wuti ay ñun dañu judd rek ah, parce que ñun benn bopp lañ bu kenn nee benn waaw benn la jeex na ñun massifié ñu parce que ñëpp duggu dugg ci biir c'est ça notre notre différence aussi. Mm-hmm. problème mooy président yëg ni tey ñu ngay def législative Thiès ci. Mm-hmm. waxuma ne duñ mais damay wax bokkuñu ci bokkuñ ci boolewuñu ci dara. Mm-hmm. donc loolu dafa nekk situation boo xamee ni. dafa doy waar benn mm-hmm. ñaareel ba mooy sur le plan national deux mille dix huit lii nga xam ne dañ ko créé sur le plan national président moo ñu sant ba mu ngi bëri de boolee deux mille dix sept Thiès ñu gagné la première fois ñu gagné Idrissa à Thiès. Mm-hmm. moo ma ni ma dama bëgg sur le plan national li nga def li nga am Thiès dégg naa am nga ko région bu ne ma ni ko waaw mun ma defal ma une association nationale. la preuve première carte l'association président moo ko moom lañ ko jox mooy carte numéro un. mais est-ce ñi mu jiital. ci biir élection maa ngi ñëw ci yow. xam nga xam nga xam nga président la République am million de problème par jour mënoo jaar ku dul ci ay collaborateurs. Mhm. je je défie quiconque amul benn collaborateur du ma tudd kenn mais képp ku jëlee jokkoo président ngay góor muy jigéen. jot nga sama correspondance wax naa ak yow yónnee naa la message que egg na ci président eggul xaw ma wóoru ma waaye la seule chose bi ma xam mooy euh, euh, correspondance bi nga xamee ne dama ko jaarale euh, par courier par courrier boobu la am certitude ko jot na ko parce que ki nga xam ne mooy le docteur Cheikh Kanté ministre d'État wa jot naa ko téléphone mu ni ma président remettre na ma sa correspondance ça veut dire que jot na ko waaw ah. kon moom moo moom Cheikh Kanté moo joxul suite à au contenu de cette correspondance là. waaw mais moom au moins au moins moom nee jot na correspondance mais ñi des ñëpp jot nañ sama correspondance te yëgul ci yëgul ci président. waaw mais jot correspondance bi te defoo dara amul njëriñ de. waaw mais je veux dire pour te dire que loolu laa la ci am preuve ni président jot na ko mais à part hmm. ça je vais dire une chose. Hmm. képp kuy ànd ak président ku dul Omar Sarr. duma la gis duma la dégg waaye j'ai défie aussi kii comme kenn musuma gis ci bureau ma taxawaal ndax ñu président la ñu am du ñu wax ak kenn xëy na loolu nag moo leen frustré parce que ñun ku dul président du ñu wax ak mm-hmm. damay wax mooy depuis deux mille dix huit dañu dañu président woowe ñu créer association bi dañ ko créer en cinq cent personnes mu recevoir ñu au palais programme benn bi ñu ko tuddee mutuel de crédit solidaire boo xamee dañ ko euh, dañ ko langue ak waa diaspora hmm. ñoom ñu war ñu li nga xam ne benn concept mooy les bassins de l' émergence pour ñi a xam ne dañoo néew doole ci ñun ñu mën leen di jàppale hmm. loolu bu ko président déggee dafa nañu dañu leen ci jàppale benn boobaag léegi gis dara ñaareel ba mu ne daa leen booleeg waa DER ndax yéen rab bi ñu am jom ngeen liggéey ngeen xam ci ah. yéen ku leen lebal di ngeen ko fay yore waa DER boobaag léegi. déposé nañ plus de deux mille récépissés gisuñu dara. kenn hmm. benn financement gi ñaareel ba ñun ay artisans lañu ñoo ëpp ci ñun. bi ñuy def Covid 19 aide aux artisans nous avons inscrit plus de trois cent et quelques personnes parce que dama leen di jarul ñu bind ñëpp. Hmm. nañ jël symbole boo xam ne ñu ci jot ñu séddale ko. trois hmm. cent quinze personnes kenn jotul un franc. donc ñoom lépp loo xamee nii bi ñu demee président waxoon neen ko kenn ci ñoom gisatuñ ko ca man sonn naa la ma sonn mooy lan su ma ay nawle lañ ca maa leen dugal ci politique ndax mosuñoo politique mais ma dugal nañ ci politique depuis deux mille dix huit mënuñu si gis seen bopp donc man dama am loo xamante ne dama koy wax mooy mënatuma di mobiliser kenn ni ko kaay ñu def nangam waaye nag li may préciser mu leer mooy président Macky Sall moom ci boppam moo ma doy comme leader su bàyyi woon politique tey ma ba politique ndax li ma ko ay sacrifice yi ma ko defal kenn keneen jaralu ko moom rek mm-hmm. moo ma ko jaraloon moo tax léegi nag puisque man ñi ma àndal frustré nañ ba nga xamee ne mënatuma leen xool man duma di mobiliser ci kenn waaye sama carte président Macky Sall moo koy moom moo moo moo moo koy. waaye yow sa carte doyul est-ce que tamit euh, euh, doo leen def benn waaw mais mais xam nga aussi damay dem ba am kersa nit ñi li may wax nii ñoom ñëpp dañ ko dégg ca ku ko dégg xam ne dëgg la ci ñoom damay dangay dem ba am kersi ci ñoom parce que lu ma am lu ne seddoon naa ko ak ñoom mais am na loo xam ne dama ko dul man su ma ko dul man nag bés bu mën leen président président dina ñëw président dina ñëw dina ñu ges dina gëstu ba deux mille dix-huit léegi ça fait cinq ans Kandé mm-hmm. donc c'est un amul fu ma ko jooyul par mm-hmm. correspondance parce que kenn nekk taxaw naa bureau parce que ñun dañ ñun ñun yàlla teral ñu ngi liggéey ku dégg bëccëg di dundal suñu njaboot ñun mmh. duñ dem kenn di ko taal national mais kenn kenn jéem ci dara les responsables qui sont à Thiès amul kenn koo xamee ni mas naa mas mas mën na leen ni David Mboup mas sama woo wax ma problème parce que man a leen a jéggi ndax man ba may dem ci président président moom wool boppam loolu nag dafa frustré ñu bëri ba nga xamee ni faale wu ñu toppatoo wuñ parce que topp ñu seen gannaaw te loolu il mmh. président xam ko bu kenn ni David bu bàyyi na président du ma ko mas a bu fi nekkoon vingt ans ma ànd moom waaye la ma ko daan defal mënatuma ko parce que sonn naa ñi nga xam ne daal samay nawle lañ mënatuma leen a. di eh, di concrètement concrètement lan ngay xaar ci concrètement lan ngay xaar ci président Macky Sall. dafa leen war a seet si wala dafa war a. non li may xaar ci président Macky Sall lentul leen man dama koy yëgal ni ko su fekkee ni ñu gis ñu fenn bu mu faw ni dañoo deful dara. correspondance bu ne bind nañ ko lu ne def nañ ko pour rejoindre pour wax ko pour wax ko li nga xam ne moom la ñuy dund pour wax ko li nga xam moom la askan bi dund kenn ku ci ne da am loo xamee ni lañ ma naan yow ñun xamuñu Macky Sall yow lañ xam. Mm-hmm. loolu fa la fekk Farandor man yem. waaw man ñi ma jël dañ maanaam xamuñu Macky Sall lañ xam. d'accord non message message bi leer na. message bi leer na parce que président dina dégg li nga wax ni euh, parce que moo leen gën a ah. soxla fu mu toll nii. mais mais mais raison de plus waaye dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo ko wër na ma je je eh, je eh, eh, je dama président Ba mais ñi nga xam ne les gens qui sont autour de lui du ma wax comme ni ñuy wax mais bëggoon naa président weer bu jot mu ni leen kenn ku ci nekk dama bëggoon nga def compte rendu mensuel des activités politiques sur le terrain parce que dend ak président rek. guddeeg bëccëg suba ngoon doo ko jariñ dara li ngay jariñ paa mooy da ngay dem ci suuf di jëm ci kaw da ngay dem ci suuf di jëli di dem ci kaw di wax président di xam lii xew. d'accord personne ne foofu. personne ne leer na leer na monsieur Mboup leer na déjà <laughs> ñu ñu bàyyi la nga tàggoo rek wax sa dernier mot. waaw mais des na parce que aussi il faut actualité politique bi il faut ñu wax ci. waaw ndax ñun ndax ñun. waaw jàmm la ñuy woote waaye li nga xam ne xew na fi temps yi passé yëpp. mooy déclaration politiciens yi nga xam ne dañuy créer genre waaso ci réew mais justement moo tax may wax. Hmm. waaye kooku kooku nga xamee ne mi ngi wax loolu. mais Ousmane Sonko moo ko wax nañ ko tudd rek. bon indexé président ne président bëggul waa Casamance loolu. waa ah, raison de plus moo tax ma bëgg a wax ak moom toujours ndax président li nga xamee ni. def na ko Casamance à part Dakar li mu def lu ëpp ci ci ci ci ci ci ñaari mandat bi Casamance la ko def kon il a tout ko waxee te ñaareel ba xam nga mooy leen moom dafa am ñaari problème daf ko waxul mu leer mais gis nga du affaire waaso de xam nga mooy hmm. problème hmm. dafa jëloon MFD dafa dafa mas wax suñ ko bàyyi ak MFDC mu réglé ko hmm. problème boobu au mu président moom na ko à façon donc loolu doole di ko doole woo moom la président réglé. Hmm. donc dèjà dina xam ne perte na ndax amatul amatul lu mu lu mu chantage léegi ñaareel <laughs> donc doole la ko ñaareel ba li mu dese woon néew ci doole dafa am gone gu ndaw goo xam moo nar euh, dindi loolu ñaari problème yi moo ko dal bëy nag boo koy rey il mu yuuxu bu yuuxu doo xam lu muy yuuxoo waaye li muy wax ni nekk na loo xamee ni c'est des contre-vérités ndax hmm. Sénégal yi doo ma koy wax moom di wax ñeneen ñi ni leen Sénégal ku ko bëgg a yor yaru da am teggin di nga am worma di nga respecté suñu kilifa diine yi te di nga wote jàmm hmm. ndax Sénégal c'est pas nit ñi buñ foog dëkk la comme yeneen dëkk hmm. Sénégal dafa mel ni grande dame boo xamee ni dafay tànn ñi nga xam ne ñoo ñoo koy yor Sénégal ku am ku yor fitna musu ko yor. Hmm. président Senghor musul am fitna. président Abdou Diouf musul am fitna. président Ablaye Wade ba mu fitna Sénégal ko woon gannaaw ba mu demee ba nga xamee ni fitna am jeex na mu doog ko jox boppam. Hmm. Macky Sall mi dafa naan kuy yaru boo nee président bu gën a yaru ci Sénégal. ku moom ngay jëkk a bind. waaye boo ne ku gën a yaradi ko dafa naa ni ña ngay bind fee lañ féete. donc ñoom nañu wuti yar ak teggin respecté kilifa yi buñ bëggee. yor mais mais mais ñoom waa ñoom waa Yewwi Askan Wi ah ñoom ñooy la majorité euh, de l'opposition pratiquement ñoom gëm nañ ne quand élection yi yéen waa Benno di ngeen ko ñàkk. ñoom dañuy gént rek ndax sénégalais duñ jur ah, ñaari yoon duñ ko gëm dèjà yow yaa ngi noonu yi ne nga dootoo ci sonnati. defal ndànk rek mais waxuma ni ñoom duñu voté de ah waxuma ne sama gars yi duñ dama ni. dootoo ci di leen di di di dem mais waxuma duñ voté de j'ai jamais dit ça. <laughs> mais dama la a xamal rek. mais li ngay wax ni boo ko waxee waa président dina dina dina wuyu nag. Kande Kande wuyu ma man président euh, wuyu ma président man euh, jàpp na ma jàpp naa ko ca dootul deñ. man waxuma waaw dama koy wax rek ni ko. li nga xam moom la jëmbatoon gars yi topp tooluñ ko ko. foofu ah, la ñu waxee oh, baax na loolu leer na. waaw ñaareel ko aussi. su may uh-huh. terminer. waaw may terminer. mooy euh, ñaari mbir euh, xam nga ñoom dañoo àndul ci dara ànd circonstance la ñu ànd. waa waaw ndax ñoom li ñu bëgg seen pexe bu jubee dañoo bëgg a bloqué réew mi hmm. te loolu te loolu yàlla du ko seetaan ndax suñu borom bi ku bëgg Sénégal ca président Macky Sall doo dégg mu gaay wax programme kenn ñi mawul wax ni liggéeyul doo dégg kenn ko wax bu fekkee nag ñoom seen programme bi mooy troisième mandat bisimilah Et eh, je vais te dire une chose. Mm du président Macky Sall. réew mi di Sénégal dañ ko jox bopp. donc li may wax c'est très important Kandé. Mm -hmm. le président n'a pas le droit de jeter ce pouvoir-là. na yor pouvoir bi wala mu jox ko ci loxo ko ci loxo yu wóor. Un pouvoir ne hmm. ah, mais, mais, mais, mais quand même, nous dans une monarchie, hein, dans, dans, dans, dans le roi qui. démocratie mature. mais dama ni dama moom na xam ni am na loo xamee ni bu fa bu bàyyee Sénégal ci ay situation yoo xamee ni ñi nga xamee ni ah, ah, ay maram biraan lañ. <laughs> ñoo jiite kenn. mën ñoo des sax seen kër ñooñu moom jamais pour ñoom pour ñoom parce que kon Sénégal na dellu gannaaw lool ca président teg na Sénégal ci yoon boo xamee ni nañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak jàmm mu yeggal fu ñu bëgg egg parce que nous sommes au milieu du gué eggaguñu mm-hmm. eggaguñu nous sommes au milieu du gué il faut pas qu'il nous lâche au milieu du gué c'est tout ce que je veux dire D'accord, je pense que quand même, euh, après tout, hein, euh, le peuple souverain, mon, mon, mon, xamna, xamna ku baax ci mom. Le peuple souverain, le peuple souverain, xam nañ yaw nañ. Waaw. Waaye nag ñun kenn du tëj suñu gémmiñ. Ñun nous sommes libres. <laughs> Kenn ku ne mën nga gëm lu la neex waaye ñun aussi dañu gëm li ñu gëm de kenn mënu ci dara. <laughs> Waaw jërëjëf monsieur Mboup ñoo ngi lay jaajëfal. Baax Kandé. di jéggul nag di jéggul nag lépp lu ma fi loo xam ne lu dëng la xëy na euh, euh, euh, kii la sama sama xol laa waxee ndax dafa metti ay nit wóolu la jiital la lu mat juróomi at mënoo fexe seen bopp leen la nga bëgg loolu xam nga frustration la loolu rek laa waxee maa ngi koy jéggulu nag di jéggulu képp koo xamee ne rek dégg nga dégg nga ci dara la naqari waaye lépp lu ci jag xam ne suñu borom la ndax doomu aadama rek laa damay juum maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom di def jàmm ci Sénégal. merci beaucoup merci beaucoup Sénégal am leen yàlla sàmm ci yàggal leen fii rawatina ki nga xamee mooy suñu yaakaar ñun teeg ëllëg teewgal fi sëriñ Touba muy sëriñ mu tàmbax yàlla nag fi yàgg lool ci ànd ak wér. amiin Kande kontaan naa jërëjëf. merci beaucoup internet yi ñoo ngi doon dalal fii Daouda Mboup nekk président association askanu rap. ci Sénégal ak dans la diaspora ñooy ñoo ngi doon waxtaanee mbiru Sénégal élection législative yi euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax léegi nii lañ ko mu accepter ñu lii euh, ñoo ngi lay gërëm bu baax di la sant yow di la ñaanal gudd fan ak wér gu yaram jërë ngeen jëf mbokk internet yi ba beneen yoon incha allah rabbi